ah déet nit ñi boolu ci mahram ci bokkuñu ci loolu moom mënuñu ko leeral li ñuy mën a leeral kay mooy ñan ñooy mahram waaw ñii mahram suñu borom yàlla wax na ko ca suratu nuur mooy ñi nga ki nga xam ne say bàyyi lañu ak lu mu kawe kawe bàyyi bàyyi maam ila axiri say doom ak lu ñu suufe suufe lan ñii waaw ñii mahram waaw moom laa la wax ñii mahram waaw moom laa la wax dama ne mooy say bàyyi ak lu mu kawe kawe say doom ak lu ñuy kawe kawe say frère maa ngi wax ak jigéen say frère ak lu ñu seen ak seeni doom lu mu sori sori sori ñooñi ñooñi la nga xam ne mooy say mahram loolee ci wàllu góor wàllu jigéen ñii ñooy la nga xam ne mooy ay mahramam bokk na ci lu ca lislaam boole mooy koo xamee ne nii dafa da ngay sëyee ak moom papaam ku mel ne sa mahram la naka noonu it kiy sëyeeg sa doom kooku sa mahram la bi charte mooy mu ànd ak doom ja mi mooy nam naam kiy sëyeeg sa doom kooku sa mahram la mutlaqan bu doon jigéen ni kiy sëyeeg yaayam kooku mahramam la bi charte mooy mu ànd ak yaay ja ila axiri ñooñu la suñu borom lim ci suratu nuur wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aw aw aw ñooñu nga xam ne mooy ñi wër doomu aadama ñi ci des ñëpp nag du ñu ay mahramam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam ala kulli xaal yi nga xam ne dañ cay tamponné ay nit loolee su dee ne dañoo gis ne nit la ñoo xamee ne nii seeni melokaan nekkul loo xam ne lu rafet la daganul jullit di tampe loolu ndax loolu siiwal nit ki la def ko royukaay la rawatina ci la nga xam ne mooy ndaw ñi te quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñay def loolu lañ ci jublu mooy loolu loolu daal mi lañ ci jublu mooy loolu amma bu doon te ne ne dafa nekk loo xamee ni nii waa ja koy defar moo ko liggéey yàlla noonu rek amul lenn loo xamee ni nii lu muy représenté la loolee dane bawoon ko de moo gën duñu wax def ko araan waaye bawoon ko moo gën su ko defee defarlu spécial bi lañ cay bañ mooy imam ñu ne ab sëriñ la wala ab artiste la wala ab ab ab jour la boo xamee ni nii yow yaa ngi koy publicité yaa ngi koy wane royukaay ci ndaw ñi lu mel noonu góor ji julit wuru caa dugg ngir di ca faggu alal wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam sa jabaroo papa même bu dee yaa ko mag am nga droit nuyu ko même bu dee yaa ko mag am nga droit nuyu ko maadaama sa papa takk na ko sa maxaram la ba ila yawmi din nga noonu maadaama sa papa takk na ko rek même bu dee sa papa musul ànd ak moom ci lal maadaama sëy bi am na rek maxaram la ba ila yumi din sa doom ki mu xis ba takk sa maxaram la ba ila yumi din loolee moom mooy mooy mooy mbir bi lañ ci génne sànq rek mooy tey ki ñëwoon takk benn benn soxna avant muy ànd ak moom ci lal mu gis doom ji doom ji gënal ko ba seen dee càmm mën naa fa sa yaay ji takk doom ji yaa ngi dégg loolu foofu kaa boobu rek la yàlla maye waaye bu dul looloo bépp façon ngorowoo bu xisee ba am rek ci baay aram na ci doom bu amee ci doom aram na ci baay mu ngi noonu wallahu alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam naam naam dañ koy bët waaw wala waaw ak beneen bi mooy waaw mu ne lu mu wax ci tànk yi fuddan fuddan tànk yi waaw waaw ala kulli xaal ndax jigéen am na droit di dem ci góoru jàmbur mu koy defal ay jaaro ci ay noppam loole day dañuy gis ne fi yéeg mi nga am pexe war a am man koo defal boppam wala jigéen mënu koo man koo defal boppam loolee warul dem ci góoru jàmbur mu koy def te it jàpp naa ne loolu wax dëgg yàlla jigéen war na koo mën a defal boppam wala jigéen mën na ko defal boppam loolee daal la ca nekk mooy des fois jaare bi mën naa yàgg ci nopp bi ba dindi ko doon problème nga xam ne tëgg rek moo ko mën a dindi su boobaa dañuy gis ne lor la mu dem ci tëgg bi mu dindil ko ko kon daal ci gàttal rek lépp loo xam ne taar la ci jigéen dagan na ci moom bëtt yooyu ñuy bëtt seen nopp dagan na islam may na leen ko même bu doon dañ koy bëtt ñetti ñeenti bëtt maadaama taaru nopp la islam may na leen ko tant que ñi ngi koy lor amu ca waruñoo dem ci góoru jàmbur mu cay intervenir bu ca lor amee nag góoru jàmbur mën na caa intervenir ngir lor ba jigéen bi nga xam ne dafay sol lu gudd di muur ay tànkam nga xam ne ay tànkam kenn du ko gis lu dul ña nga xam ne ñooy ay maxaramam ndax xatta ba ci digg yeelam maxaram mu am na droit gis ko xam ne cosaan bi alxuraan di wàcc jigéen ñi dañ naan takk ay lam xam nga naar yi naari gànnaar dañ koy takk ay lamu tànk loolu yi islam may woon na ko moo tax mu ne wala yadrib na bi arjulihinna li yu'lama yuxfir min zinatihinna jigéen ay frère am ki bàyyi am nañ droit di gis digg yeelam jëm suuf dara nekkul mu fuddanu mais bu dee suñ jigéen ñii nga xam ne seen i tànk dañ leen ko fatt ci mbedd mi waruñu caa boole di ko fuddan di attirer attention góor ña mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi santar suñu borom subhanahu wa taala ci nim ñu wërsëgalaate ñu daje ci am néegam fas yéene jël benn bind ci loo xam ne dañ koy tuddee fiq ca fiq mooy suñu borom lim ñu wax ci ab téeréem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci ay hadis borom xam-xam yi ñoo ko jël leeralal ñu ko ba mbooloo mi man koo jëriñoo ñu ngi toppoon suñu téere bi di risala bu ibnu abi zayd al qayrawani rahimahullah ñu duggoon ak yéen ci ñeen fukkeelu bunt bi ak benn mu nekk baabun fi lfitrati walxitaan ila axiri bu dee ni ñu yor traduction mool bu xonq bi ñu ngi ci page cent dix-huit bu dee ñu yor samaru daani bi bu ñu xoolee page six cent quatre-vingt-cinq ci troisième ligne bi daañu fekk mu naan wala yalbasu nisaau min arraqiqi ما يصفهن سمروداني page 685 ci troisième ligne ba da ngay gis muy wax ci digg ligne ba ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن su dee bokk nañ ko gis kon borom téere bi rahimahullah day wax ni ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجنا jigéen day du du sol ci loo xam ni ay yére la yu doon yu yu yaraax yoo xam ni dana leen melal heure bu ñuy génn doonte ne raqiiq dana nekk lu woyof mi ngi noonu di leen melal wala yajurru rajulu izaarahu batra du diri góor lii di ab sëram mi ngi noonu ci loo xamee ne nii dafa nekk puukure tax na doon looli pantaloolam caayalam lu mën a doon wala sawbahu min alxuyala du diri it la nga xam ne mooy yéreem fekk ne da cay wan la nga xam ne nii mooy ak pookaréwu wante bataran mën na nekk ak béew xuyalaa doon pookaréwu wal yakun fi ilal kaabayni nga la waay yére julit na dem ba yegg ci ay kostenam fa huwa anzafu li sawbihi loolu mooy gën a laab ñeel yéreem wa atqa li rabbihi te it mooy gën a nekk lu muy ragale boroomam subhanahu wa taala wa yunha an ijtimaali sama tere nañu ci làmbaayoog li ñuy tuddee làmbaayu sama wa hiya ala gayri sawabin ca mooy bu nekkee ci lu dul ci kaw ab yére yarfau zalika min jiha mu jël lam làmbaayoo wël daal di koy yëkkatee ci benn côté wa yasdulul uxra daal di sëmbaltal te mooy wàccee ba ca des wa zalika ida lam yakun taxta shimalika sawb looli mooy bu nekkul ci sa suufu looli nga xam ne da nga koo lambaayoo li di ab yére mi ngi noonu ba ko kon fii day wax rek ci ne li nga xam ne góor ak jigéen war nañ koo sol mu commencé ci jigéen muy jigéen bu muy sol loo xam ni da koy melal ca mbokk jullit ñoom jamono yi ñu bind seen téere yi xalaatuñu woon jigéen di génn di génn ay poojam wala di génn ay dënnam problème bi ñu amoon kay mooy jigéen ñi daan génn ñépp dañ daan muur seen awra mu am ca nag ñaari yére benn yére bu yaraax boo xam ne soxna si bu ko solee ñuy gis der bi ci gannaaw te ak a bari ci sun façon yére yi jigéen ñi sol tey beneen bi mooy yére boo xam ne dafa sew masalan lu mel ne suwaay nga xam ne danaan tàpp sa kaw ba jigéen bi même bu soloon robb sax koy dox da ngay gis da koy melal ci biiram yépp loole da ngay gis ne ku mel ni asma bint abi bakar demoon na ba silmaxa am doomam du koy indil tiss bu mel noonu mu ko làmbee mu ne ko bii day baaxul mu ne ko moo ne day dafa fat yaraaxul mu ne ko ba yaraaxulit day melal te mooy tiss yi rastax yooyu jigéen bu ko solee noonu la koy def maa ngi wax nag jigéen ñi sol colug lislaam waxuma jigéen ñi tol ne seen ndey na dras ab fiiso fiiso bi bind la comme ni la yàlla bindee loolu moom dama ko jëlale loolu moom vraiment loolu musiba la bu rëy rëy rëy bu ñu yàlla nattoo rawatina dix ans yi jëm vingt ans yi ni ñu ci yàlla nattoo jéggi na dayoo ay fiiso yoo xam ne boo demoon dëkk tubaab yi sax lu bëri ci ñoom duñ ko def am ma kon loolu la jigéen war a bàyyi xel mooy jigéen yaramam yépp da ko war a muur jigéen warul sol lu xat warul sol lu yaraax war naa moytu sol col goo xam ne fu mu tor na ñépp di ko xool te loolu la jigéen ñi gën a bëgg muy li ñu tudd ashuhra war naa moytu col ga nuroog colug góor war naa moytu col ga nuroog colug yéeféer war naa moytu col ga nekk col goo xam ne gu ñu feesal la ak gët mooy gu ñu parfum lii mbokk juróom-ñaari shurut la yoo xam ne dafa daje ci colug jigéen mu doogoo nekk colug lislaam waaye lii lu ci manqué rek solu na waaye colu ceddu la solu bi mu paree mu dem ci góor ñi mu ne it nga la waay yéen góor ñi seeni yére bu mu paase seeni kostel te loolu natt bi ñu yàlla nattoo lu bari ci nit ñi seen yére day boobu am na jigéen ñi ñoom gàttal seen yére ba seeni oom muy contradiction boo xam ne ni bu rëy la waaye yàlla ku li xaal mbokk jullit xamal ne yére góoru julit lu mu gudd gudd gudd ca kosteen ba la war a yem yeneen ci bale sam dane yére julit ci digg yéelam lay yem dara nekkul nag mu bàyyi ko ba mu yegg ca kosteen ba amma la gën a suufe kosteen ba dañ koy lakk ci biir sawara loolu ku ne war cee bàyyi xel borom xam-xam yi it hadis yooyu tax na tënk bi borom téere bi tënk ne bu dee da koo def pour puukare wu tënkuñu ko ci loolu même boo ci jubluwul puukare yow jullit war nga moytu di sol loo xam ne day boobu day romb say kostel di boobu mu ne loolu moo gën ci yére bi te it loolu moo gën ca ragal nga ngay ragal sa boroom loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax amma bu dee ni jigéen moom lañ ko sant mooy daa war a sol luy boobu loo xam ne bu doon dox ay tànkam di feeñ te loolu mbokk jullit jigéen ñi jëkk ña waxuma jullit ñi di xatta yéeféer ya loolu seen mandarga la woon tubaab danaan el ramassa sa rob tubaab bu jëkk jigéen balaa daw day lem yéreem sinon bu ne bërëri day fakkastaru ndax rob bi di daan buubu aada boobu moo topp ci seen robe de mariage yi da ngay gis ñuy tudd ay fille d'honneur yuy téye suuf robe bi loolu la jigéen xamoon bu jëkk ñu ngi noonu ca mooy ay tànkam mu koy muuru heure buy génn am gannaaw loolu nag lay tere benn façon loo xam ne nii loolu moom aada la ci lenn ci ñoom mooy ñi nga xam ne dañ daan jël seen yére rek wikkoo ko nii seen benn côté di dox di dem nga xam ni benneen côté ba bu yëkkatee loxoom rek awram mën naa feeñ am na asama boobu am na ci ñeneen ñu koy firee yére boo xam ne dañ koy sol nii rek ci amul amul loxo mu mel ne ab saako boo sol rek amul loxo nga xam ne tey loo soxla woon ci suuf nga koy yëkkatee nga xam ne sa awra day feeñ ñu ne yonente bi loolu loolu mooy asama ala kulli xaal loolu aada la boo xam ne loolu arab ya ñoo ko doon aada woo allahuma lu dul rek boo ñëwee ñun suñu réew léegi nag ñu gis lenn ci ay nit ay dara la ñuy sol bu ñuy julli léeg-léeg imam bi sax lay ñëw doon bu ñëwee daal di lem fii lem fii diq bi ne bàtt ci biti la nga xam ne suufu biir baag yépp di feeñ mbokk yooyu dañ koo war a moytu dañ koo war a moytu mooy jullit xam ne heure bu jëmee ci boroomam dafa war a am melokaan boo xam ne nii bu correct lay doon te loolu correctul mi ngi noonu amma su dee dañuy jël beneen bind mu ne waxtulifa fiihi ala sawb ki nga xam ne dafa jël yére boobu wékkoo ko su dee ne am na yére bum jiital am na ñu ne loolu dara néew ci donte ne ñu ne am na ñu ne baaxul ba tey wa yu'maru bi satril awra des na digle ñu sutural awra wa izratul mu'min la nga xam ne mooy koddaa yu julit na doon sirlaam caayalam lu mën a doon ila an saafi saqayhi da ko war a yóbbu ba ci diggi yeelam wal faxzu awra pooj xam leen ne awra la wa laysa ka awrati nafsiha waaye melul ni awra bi ci boppam mi ngi noonu mooy awra ba ci boppam wala yadxulu rajulu alxamaama ila bi mizar julit day du dugg te douche publique ya xanaa lu dul ni dafa doon koo xam ne ko waddu la wala tadxuluhu almara jigéen nit du ko dugg illa min illa xanaa lu dul loo xam ne feebar bu bu ko dab la wala yatalaasaqu rajulaan du nekk di tafoo ñaari góor wala mraataan wala ñaari jigéen fii lihaafin waaxid ci benn càngaay kese ñi ngi noonu kon mbokk day wax fii rek ne nañu xam ne jullit daa war a sutural awraam te it jullit war naa góorgóorlu sutural awra boobu wax nañ la ci jigéen bu dee day génn mooy léppam suuf kanamam ak ay loxoom fi ñu takk montre jëm suuf amma bu dee góor la ëpp ci borom xam-xam yi dañu naan diggante jumbo xam la ak óomam mu ngi doon ay génome ay óomam mu ne bu dee ni yow góor da ngaa doon koo xam ne da ngaa woddu xam ngeen arab yi lu ci bëri dañ daan woddu ba tey pakistanais yi da ngay gis dañuy nekk di woddu même góor ñi ak hindou yi mu ne bu dee ne tey ji da ngaa amoon koddaay ak lu ko mën a remplace li ca gën mooy layam si digg yeel comme ni ñu ko waxee sànq mu ne nag nañu xam ne ay pooc moom awra la pooc awra la doonte ne awraam yëggul ci awra bi ci boppam loolu tax borom xam-xam yi dañ koy teqale mooy li ñu tuddee awra mughallaza ak awra mukhaffafa awra mughallaza mooy awra bu tar bi mooy culotte fi muy tege boo soloon culotte culotte bu ndaw fi muy tegee loolu lañ tudd awra mu xallaza loolee góor warul nangu kenn di ko gis ku dul soxnaam mi ngi noonu soxnaam kese mu am nag lu ñu tudd awra mu xafafa mu xafafa mooy culotte bu ndaw bi fi muy tegee mi ngi noonu ba baa ci digg oom bi ba baa ci ba nga yëgati oom bi loolu it awra la waaye awra bu ñu woyefal la luñ ci tax ñu tër ko awra bu ñu woyefal nëbboon ko day mooy la gën donte ne génne ko xaraamul waaye nag nëbboon ko mooy la gën mooy la gën a mat ci la nga xamee ne nii mooy ci diineem am na ca yenn borom xam-xam yoo xam ne détail yooyu yëpp waxuñu ko ca ñoom dañ naan rek yonent bi alei salaam nee na al faqzu awra nee na pooj awra la kon kenn warul génne sa awra waaye la ca gën a digg doomu mooy détail bi mu wax mooy teqale diggante awra bu tar bi ak awra boo xam ne nii moom awra bu woyof la kon mi ngi noonu mu ne it dañuy gis ne du yey ci ay góor ñuy dem di dugg ci douche publique yi lu dul ne dañoo woddu jigéen ñi it lu dul ne dañoo feebar te loolu daanaka aada la yu wàññeeku mooy bu njëkk arab yi lu ci bëri amuñu woon xamuñu woon douche kër xamuñu woon douche kër dañ daan am lu ñuy tudde xammaam muy douche publique boo xam ni fan la ñuy dem di sangu da nga noonu loolu nag mu ne da nga daan gis gaa yu saggan yoo xam ne dañuy ñëw bu ñu xasee ba dugg ci biir rek yaramu neen dañuy def ñuy gisante mu ne déedéet même loolu bu dee mënoo caa bañ a dugg na nga ànd ak sab sér ba nga waddoo jigéen it du ca dem di fa dugg lu dul ci feebar mi ngi noonu amma la mujj tere mooy ñaari góor buñ bokkee lal amuñu droit summeeku ba pare bokk benn sër bu leen sàng wala benn mbàjj bu leen sàng amuñu droit loolu bu ko defee seen yaram yi di laalante loolu jullit du def loolu lu mel noonu it la ñuy wax ci ñaari jigéen ñoo xam ne ñoo bokk benn lal mu ne amuñu droit di bokk benn sër bu leen sàng te loolu ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk lu mu mën a doon amuñu droit de bokk benn sër bu leen sang su dee ne seen ñaari yaram ya dafay laalente amma bu dee ne ku nekk ak yàgg sa càngaay dara nekkul ci ñu bokk la nga xam ne mooy benn lal suñu jël beneen bind mu ni wala taxruju imraatun ila mustatira fima la budda laha minhu ngalawaay jigéen bu mu génn lu dul mi ngi sutural awraam na doonit génn boo xam ne munta ñàkk la budda minhu munta ñàkk min shuhudi mawti abwayha mi ngi mel ne tey ñu ne ko sa waajur faatu na fokk mu dem fa aw zi qarabatiha wala ay jege ñaaleem aw nahwi zalik wala lu mel noonu wa ma yubaahu laha ak it yépp génn ya nga xam ni dana dagan ci moom wala taxduru min zalika ma fi nawxun nawxu na naiha du demit di ca teewe loo xam ni dafay nekk jooyu addiñey jooy te mooy niyaaha mooy jooy spécial yooyu ñuy jooy néew yi aw lahwun wala boog la nga xam ni ak puukare da caa nekk min mismaarin loolu yi na doon ay flûte la yu ñuy ëf mi ngi noonu ay trompette ak yu demee noonu aw uudin wala lépp loo xamee ne nii lu ñuy jël di ko xëcc muy génn ay son aw shibihihi ak li mel noonu minal malaahi ci mboolem instrument musical yi al munhiya yi nga xam ne day itteel nit ñi yooyu yëpp jigéen waru ko fekke illa duf xanaa lu dul la nga xam ne moom la ñuy tuddee duf di ndënd mu ndaw fii nikaax su dee ne ci ciit la wa fi wa qad uxtilifa fil kabari doonte ne wuute nañu ci li ñuy tuddee tabala muy ndënd bu mag mi ngi noonu waaw kon day baa mu rek ci ne jigéen heure bu demee bay génn dafa war a suturaal awraam wax nañ leen ko sànq awra ba naka lay demee ñaareel ba mu ne it jigéen warul lu xew rek mu ne par dem jigéen dafa war a génn loo xam ne nii munta ñàkk mu dem ca te doon teewi ay néew wala lu dagan bokk na ci lu mel ne ak céet mu am nag loo xam ne aada la woon ci naar yi te it lu bari ci nit ñi roy leen ci mooy bu ñu deeyee jigéen ñi déngoo di yuuxu ku nekk di jàmbat way fu ma jëm aka baaxoon aka nangamoon loolu la ñuy tudde ni yaaxa loolee islam da koo tere mu ne jigéen warut a fekke loolu waru koo teewe loolu bépp daje it boo xam ne ay musique da caa am musique ba ab bépp façon musique la ay frite la yu ñuy def ay riiti la ay lu mu mën a doon guitare la lu mu mën a doon loolee ju jigéeni jurit waru koo fekkee xanaa lu dul bu dee bisu ciit may nañ jigéen ñi ñu tëgg am dënd yonent bi alayhi salaam nee na lii teqale lu dagan ak lu xaraam mooy bisu iit ak bisu ciit ñu tëgg cam ndënd ndënd moo xam ne dof ndënd bu ndaw lay doon ñu koy yëkkati nga xam ne daanaka dafay mel ni rek ab tame bu mag benn côté ba la ñuy foor nga xam ne bu ñu ko doon tëgg fii tey du passé presque rayon bi ay cent mètres loolu la mu ne nag wuute nañu ci waaw bu dee tabala nag ndax ay jigéen am nañ droit fekke fu ñuy tëggee tabala boo déggee ñu ne wuute nañ ci rek mooy am na borom xam-xam yu ko nangu bu dee it la wala ciit am na ñoo xam ne ni nanguwuñu loolu lii kon lay wax mbokk julit ci wàllu googu donte ne booy jël beneen bind it ba tey mu ne naa mu ne naam kay ok danañuy dimbali sax waaw bismillah naam wala kulli xaal dëpp mën na daa xiyaas bool te mooy lépp loo xamee ne nii dafa tëjuwul complètement te ñu mën koo tëgg loolee jigéen ñi bu ñu amul dëpp nga xam ne cosaan ba bant la daan doon mooy ndënd rek ñu foor ko ak der bu loolu amul it jigéen ñi bu ñu nekkee seen bisu it wala ñu nekk bisu ceet ñoomu neen am nañ droit tëgg la nga xam ne mooy seen dof yooyu ndax am nañ droit boole ko akum pecc am na borom xam-xam yoo xam ne dañuy taral ci ne pecc ma waru caa ànd donte ne am na ñoo xam ne dañ ne fecc ma bu dee ne génnewul seeni lenn ci awra nuru nuruwul peccu caaxaankat ya ci seeni biir kese la yem loolee dañuy wax ne nekkul dara nekkul ci loolu allahuma lu dul nag jamono ji ñu toll la ca borom xam-xam yi doon bañ ñun war nañoo bañ lu ko ëpp ñun ñu tombeeg jamonoy portable néew na nga gis mbooloom jigéen lu dul am na ko ci yor portable di filmer mbooloom la ñuy wax naan jigéen ñu neen ñoo koy def déedéet adduna yépp a koy bokk di gisandoo loolee ñu bàyyi ci xel bu baax wallahu subhanahu wa taala aalam naam su dee ne naam naam mu ne waaw waaw ala kulli xaal sol sa jogging jogging la nga xam ne colu góor la loolee ku ne xam na ko tubaab bi moo ñëw taaral ñu ne kii def sport wala kii def aar lu ko neex mën na koo sol ñooñu di sol jogging yi ñooy ñu toll ni seen day nekk ci terrain basket bi sol ay culotte su ko defee da ngay gis ne jigéenu jullit su bëggee rek tàllal yaramam ci dox yi muy dox ak daw yi muy daw yépp ba solul ab jippam loolu du tee mu def ko ba solul ab jippam loolu du tee mu def ko loolee kon su dee ni mënoo ñàkk a dem ca la ngay dem ci tàggat sa yaram loolee nga la waay colal col goo xam ne ku la seen xam ne jigéen la mais nga sol sa jogging nga gis léeg-léeg benn groupe jiitu la ay góor ak jigéen ñépp sol ay jogging kenn du leen xàmmee mbokk déedéet col dafa ñëwoon ngir ràññeet le ne ñii ay góor la ñii ay jigéen lañu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam ci biir julli islam dafa sant ñu suturaal suñu awra loolu moo tax ba bu doon yow rek yaa nekk sa néeg tëj nga néeg bi kenn du fi dugg ndax am nga droit julli yaramu neen déedéet da ngay suturaal sa awra loolu mooy mooy benn jigéen bi loolu it lañ koy sant mu sutural awraam sutural awra boobu ci julli tamit dañuy gis ne yemul rek ci ne nañ sàng awra bi kese waaye ku yàlla may xéewalit gannaaw sutural sa awra war ngaa taaru moo tax yeneen suñu borom ne xuzu zinatukum inda kulli sala moo tax yeneen ci bi alayhi salaam ne kenn ci yéen buy julli ngalawaay na def teg dara ci ay mbaggam donte na awra bi mi ngi yem ci jumbu xam dañu gis ne ku mel ni Abdullah ibn Mas'ud mas a am ak coow Abu Musa al-Ashari Abu Musa ni boo waddoo rek doy na pour nga julli ibn Mas'ud na ko booba yére dañoo tumurank ci yére bañ demee ci Omar ibn al-Khattab mu ne leen Abu Musa wax na dëgg donte ni ibn Mas'ud jéggiwul dayoo waaye bis na ko tey bu ma déggati ngeen di werante ci wàllu wàllu yu demee noonu te mooy dagan na naam jullit nga julli nga waddu masalan sa serviette waddu nga sa sa jumbax ba sa oom dagan na dagan na nga jullee ko waaye nag dafa am loo xam ne doomu aadama dañ koo jàpp ne boo respecté ay nit sooy dem ci ñoom am nga melokaan boo war a yor kon boo jëmee ci sa borom it war ngaa am melokaan boo xam ne bu normal la loolee tey ñun ñëpp ñoo ko boo ko xam ku ne xam nañ ne imam bu ñëwoon di jiite jàkka ji waddab serbetam bu ñëwee tey julli ga doon julli gu baax et pourtant lim dafa xaraamul waaye nag nit ñi mënuñu nangu lool loolu nag moo tax ñu xam ne daal awra bi lislaam santaane ci julli mooy diggante jumbax ak oom ku ko muur julli julli gi baax na waaye nag rafetul amaa bu dee jigéen moom dañ naan ko muural sa yaram yépp ba mu des sa kanam ak say tënk bu doon day génn dañ naan ko muur kanam gi mooy la gën amma bu dee day julli day génne kanamam ak i tënkam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam kii dem di tëdd di nelaw bu dee moom rek mooy tëdd ci ab lalam ah wala muy tëdd ak soxnaam bu ko neexee sax dafa yaramu neen bu ko neexee sax dafa yaramu neen la ñuy tere daal moo di ne yaag nit yéen a ngi tëdd mooy góor na yow yéen a ngi tëdd ci benn lal ngeen seeni yaram di laalante loolu lislaam dul nangu bu dee ne da ngeen a tëdd ci benn lal ku nekk na sangoo mbàjjam la gënoo nit mooy ku nekk tëdd ci sab lal ndax xam ngeen borom xam-xam yi am nañu tuuti juyoo ci yonent bi alayhi salaam lim ne seen doom yi bu ñu amee fukki at na ngeen leen duma buñ julliwul te ngeen teqale leen ci lal yi ndax loolu day firi mooy bu ñu tëddee ci kaw lal ku nekk nañ ko ber jox ko càngaayam am na ñu jàpp ne loolu ak teqalee la di sukkandikoo ci hadis bi am na ñoo xam ne dañ ne déedéet ku nekk nañ ko wutal tëruwaayu boppam ku nañ ko wutal lalu boppam looloo tax bu ak yombal amee moom góor du tëdd ak góor jigéen du tëdd ak góor du tëdd ak jigéen ku ne day tëdd sa lalu bopp am maanaam bu xat-xat amee bu ñu tëddee ku nekk ne fexe ba yaramam do laalanteeg yaramu moroomam imma ci yére yu ñu sol la wala ci sër yu ñuy sangoo la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam ndax dana digee dana dagan ci jigéen dana dagan ci góor mu dem ci jigéen boo xam ne dafay maase mu koy maaseel yaramam lu moromu góor wala jigéen jigéen non mu dem ci jigéen boo xam ne ni da koy maase bay laal awraam ala kulli xaal mbokk jullit li ñuy wax rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu jël benn pont jam ko sa digg bopp ba mu dugg ca bopp ba boo xamoon moo lay gënal nga sa yaram bi nga koy laalaleeg yaramu jigéen boo xam ne daganu la gars yi loolu tontuwul tontu bi ah kay su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax góor nga dem jaaxaan ci kanamu jigéen mu ñëw ak loxoom yu nooy ak pepru déem fu ne ma maase la ko sa yaram waxuma awra tudd ma sax awra fu ne ma maase ko sa yaram loola it da ngay gis rek borom xel warul nekk di laaj ndax lii dagan nam daganu ku ne xam ne lu xaram la am maa nag awra léegi lañ doon jàng ci timis wala zinuhum ah lii lan furujihim xaafizuun su suñu borom mu ne ñi nit ki dañu war a wattu seen awra lu dul seen soxna mbokk awra góor soxnaam dong nga ko war a gis soxnaam dong nga ko war a laal du keneen ci kaw suuf xanaa lu dul ba jaam di am li valable ci góor moo valable ci jigéen ndax dana dagan ci jigéen mu dem jaaxaat góor ñëw di commencé c'est la même chose loolu nattu la bu ñu tubaab bi indil loolu mooy pro looy mooy musiba boo gisee danger culture bu jax ngay jaxasoo mooy bu yàggee dañ koy banaliser bu yàggee dañ koy banaliser ni ngi noonu sama mbokk Abdoulaye lay yàlla na yàlla dolli ko yiw ñu am benn gan bu jógoo yaakaar naa pir la jóge di ñëw timis ak i jooyam waaw mujj lan la maa da jeg jigéen biy tux yaa ngi dégg ah dégg nga ah loolu day am na problème am na ñoo xam ne suñu maam yoo xam ne kër bañ gëjee jëkkee génn dajeeg jigéen bu sol pantalon hee parce que ñoom góor sol pantalon sax dérilé woon mais tubaab bi bu ñëwee day jël ay mbir taaral ko ba loolu du doon ba doon dara ala kulli xaal mbokk ji jullit moom du xalaat loolu sax ba waxuma di ko def wallahu subhanahu wa taala alam naam bu dee jigéen bu dee jigéen ak jigéen ak góor ak góor ca laal awra amu ca loole dara newu ca góor mën na maase góor fi yeeg yeggul ci di laal ay awraam jigéen mën na maase jigéen fi yeeg la yeggul ci di laal aw awraam allahuma lu dul nga dem ba yëg ne bànneexu sëy ma nga cee am lépp loo xam ne dafay dafay jëme ci fitna dañ ko tudde saddu zaria mooy léeg-léeg jukko yi dana yàqu ba am na góor ñoo xam ne ni seen xel day nekk seen moromu góor am jigéen ñu nekk seen moromu jigéen donc cosaan ba dañ naan dagan na jigéen di laal jigéen fii ak ragaluñu fitna naka noonu dagan na góor di laal góor fii ak ragaluñu fitna loolu daal la ñuy wax ci wàllu googee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal su wet ma wax naa la ne awra bi mooy jëmbax bi ba ci oom bi su ko defee solo soudainement ba dañ naan rafetul su julli wen julli ga baax na waaye nag julliwul julli gu rafet loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee nag da ngay gis ñu ñëw ci jàkk yi solo ay survêtement sol ki waxuñu ne amuñu julli waaye dañ naan defuñu lu rafet loolee ñu bàyyi ci xel bu baax waaw ala kulli xaal avant ñuy waaw bismillah naam fitna la boo xam ne ni it yàlla nattoon nañu ko ci góor ñi mooy dañuy sol pantalon yoo xam ne awra bi leen yàlla bindee ci kanam danaan tàpp nga gis ko ci gannaaw danaan tàpp nga gis ko mbokk loolu ma demoon ko mel ne Cheikh Nasir Albani rahimahullah ba muy wax ci lu góor nee na pantalon tubaab yi ñu ko indil mu indi ñaari fitna fitna bu njëkk ba ca nekk mooy nuru nurulu la nga xam ne mooy yéeféer ya nga xam ne nii ñoo koy def ak manière ñu koy defee gannaaw ba muy melal sa awra amma nag bu doon pantalon bu dafa doon pantalon bu yaatu boo xam ne melalul sa awra loolu dañ naan dara newu ci mais daal jin yi moytu yenn pantalon jin yi ñuy sol ak yenn pantalon yoo yoo xam ne nii sa awra bi da koy melal comme ni nga xam ne nii noonu la ko yàlla bindee bu dee ne amoo chemise boo xam ne dem na ba muur ko loolee amoo droit di ko génne sa kër wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal xam naa comme mbokk bi laaj benn question bu aju ci wàllu massage ñu ngi fàttali rek ne am na benn mbokk julit bu ñu tuumaal ci presse bi di ko wax lu ñuy jëkk a wax rek mooy daal bépp xabaar bu ñëw bu jëm ci wàllu njaaloo ci jullit suñu borom yàlla dañ cay jox ay garde fu benn sa yoon nekkul ci ngay wax loolu ca amoo ca la nga xam ne mooy preuve képp ku ñëw wax ko bala nga koo gëm dana indi ñeenti seede képp koo xam ne fekkee na ko am na ci sax preuve ci amul ñeenti seede suñu borom mu ne ulaaka inda allahumul kazibun ñoom ci yàlla ay fenkat lañu donte ne wax na dëgg mais ci yàlla ay fenkat lañu su ko defee yu deme noonu daal judit yow da nga koy weddi mi ngi noonu da nga koy weddi yàlla nag moo xam la cay dëgg la taxoon nga mën koo gëm rek mooy ki koy def ne nangu naa ko wala ñeenti judit yu maandu ne seede nañ ko gannaaw loolu amoo droit di gëm loolu wallahu subhanahu wa taala alam kon ñu yeggalee bind bi mu ne mu ne it wala yaxlu rajulun bi imraa du dagan ci góor di wéet ak jigéen laysat minhu bi mahram ca nekkul la nga xam ne mooy sa mahram wala ba'sa an yaraaha li uzrin dara nekkul it ci góor gis jigéen ci ngant min shahadati alayha ci seede ci kawam aw naxwa zalik wala lu mel noonu aw ida xatabaha wala bu dee daf koy labat soxna wa ama al mutajaala wa ama al mutajaalatu bu dee nag jigéen boo xam ne amul benn taar fa lahu an yara wajhaha ku mel noonu dara nekkul ngi gis kanamam ga ala kulli xaal ci bépp xaal bu mën a doon mu ne it wa yunha nisaau an wasli shaar des na tere jigéen ña ñu yokk seen karaw wa anil washm des na leen tere la nga xam ne dañ koy tuddee ay jamu mooy ay tatouage yoo xam ne dañ koy def ci seen loxo ya wala seen tuñ ya wala lu mën a doon wa man labisa xaffan xuffan koo xam ne daa sol ab bot dàll bot aw na'lan wala ay carax bada abi yaminihi nay jëkkee ndey jooram wa ida nazaa bu demee ba koy summi nag bada bi bada abi shimalihi na jëkk na jëkke càmmooñam wala ba'sa bi intiqaali wala ba'sa bi intiaali qaaiman dara nekkul ci sol say carax fekk da ngaa taxaw wa yukrahu almashyu fi na'lin waahida doonte ni sib nañu kiy dox ci benn dàll kese wa tukrahu tamaasilu sib nañu it la nga xam ne mooy ay nataal fil asira ya ñuy def ca lal ya wal qibaab di ko def ca toiture ya wal judraan di ko def ca miir ya wal xaatam di ko def ca jaaro ya walaysa raqmu fi saw bi doonte ne terewuñ ca loo xam ne nii dañ koo tappe dessiné ko ca yére ba min zalika wa tarkuhu ahsan waaye ñu bawoon loolu it mooy la gën mi ngi noonu mbokk day wax fii rek du daggan góor ak jigéen ñu wéet ca ki ngay wéetal du sa maxram loolu natt bu rëy lañu ci jaxasoog ñi yéefiri yóbbe bokk na la ca gën a tar mooy bureau yi nga xam ne tey nit ki dafay nekk ak secrétaire am huit heures de temps par jour mbokk loolu fitne yu nekk lay jur problème yu massage yi ñu doon wax it c'est la même chose presque mi ngi noonu dem te jóg jigéen fitna lay jur allahuma lu dul bokk na ci it ay nattoo mi ñu yàlla nattoo appartement yi ñu nattoo tey jii di ngay gis ni ki nekk appartement am la nga xam ne mooy mbindaanam léeg-léeg soxna si day feebar dem kër yaayam mbindaan bi mooy ñëw moo lay defaral sa néeg moo lay toggal moo lay jox moo lay ila axiri léeg-léeg mën naa tukki loolee mbokk yu ci bëri day jur ay fitna ba nga xamee ni góor war na ko moytu kemtalal kattanam jigéen moytu ko kemtalal kattanam muy góor ak jigéen wéet foo xam ne mën nañ faa def la ñuy def te kenn du ko yëg loolu la ñuy tuddi wéetaay loolu kenn waru ko nangu mu ne it bu mu nekk maharam donte ne ne yal na yàlla xamal ñu suñu diine wallahi biig laa dégg question boo xam ne mosuma ko dégg sama benn doom bu jigéen dafa am ku muy jàngaloon école moom day muuru kooku ne ko man day classe bi yépp ne ko Patrice ak Jean rek ñoo ci mës a gis sama karaw ñooñu ay chrétien lañu mu ne ko waaw lu tax ngay nangu seen ñooy si karaw mu ne ah dañoo ñëwoon sama karaw man muuruwuma parce que ñii xaram na ma sëy ak ñoom moo tax ma woon leen sama karaw xoola ma loolu pour moom li ñuy tudde mahram ku yàlla araamal di sëy seen diggante mu ne comme ay chrétien lañu ci araam ma sëy ak ñoom kon mën nañu gis sama awra dégg nga donte ne ne ku diineem ñor la waaye nekk xamul ñeneen xamul ala kulli xaal mbokk maxaram bi ñuy wax mooy koo xam ne sayda aram seen diggante ba faw loolu am nañu cay boole sama rakku jabar sama magu jabar déedéet mi ngi noonu sama jëkkëru tànta sama ilaaxiri mooy koo xam ne nii ci cosaan sayda aram seen diggante ba faw ñii la ñuy tudde maxaram mi ngi noonu borom bi nag nee na wala bokk borom téere bi mu ne nag jigéen mën nañ koo xool ba xàmmee ko bu dee dañoo bëgg a séede ci moom bu dee ne da ngaa bëgg a takk soxna it na nga xool soxna si ba xàmmee ko cam bañ a doon xoolu whatsapp wala xoolu internet képp ku ci bàyyiwul takk soxna ci internet da nga màtt sol ko bu cax ba tay kon na nga ko gis directement nga xool ko mu ne it bu dee ne soxna sa dafa ñàkk a taaru lool nga xam ne amul benn shawxa benn shahwa booy yëg mu ne loolu it dara nekkul ci nga gis kanamam ga noonu lañ teree la nga xam ne mooy yokku karaw mbokk jigéen di yokku karawam dafa doon lu xaram jigéen di yokku karawam ka toog di ko ko yokkalit dafa xaram yonente bi alayhi salaam mu ne laana allahu alwasila walmustawsila ki ñëw ñu yokkal ko karawam ak ki toog di ko yokkal karawam ñoom ñaan yépp yàlla rëbb na leen tatouage yi jigéen ñi di def seen yaram yi loolu it ñoo xam ne dafa doon lu xaram alwashima walmustawshima ki kay tatoué ak kay dem ñëw tatoué ko yépp ñaar yépp lislaam da ko tere loolu mi ngi noonu loolu la ñuy tere ay ñaas donte ne yooyu sax xewi na léegi mais mi ngi noonu lépp loo xam ne jurit da koy def ci yaramam mu nekk marque bu ci sax loolu dañ koy tere bu doonte ne nag loo xam ne dañ ko ci dessin nga xam ne moom boo ko raxasee mu dañ loolu yi dañuy xool fan nga koy feeñal ndax da nga koy feeñal ca ña ko war a gis muy say mahram wala da nga koy feeñal ca mbedd ma bu dee ca mbedd ma lu xaram la mi ngi noonu bu dee sa diggante ña ko war a gis dara neewu ci yu mel ni jigéen mën na fuddoon loxoom ba mu rafet mi ngi noonu loolee waaye du charte mu yemale ko fa mu war a yem ci loolu it lay wax ci ne heure booy sol say dàll ndeyjoor ngay jëkk a sol booy sumi càmmoñ ngay jëkk a sumi mu ne it nañu moytu di mu ne dara nekkul ci sol dàll fekk da ngaa taxaw ndax dafa am benn xadis boo xam ne ñu ne yonente bi alayhi salaam mu ne naha an yanta ila rajulun qaima góor bu muy sol dàll fekk mi ngi taxaw te loolu en général mooy dàll lu mel ne chaussure fermée yi léeg-léeg da ngay gis rawatina bu dee maga soo taxawee di ko sol da ngay déséquilibré wu waaye mu ne loolu nag conseil la rek du loo xam ne bi ñu tere la moo tax mu ne nit ki mën ngaa sol sa dàll fekk yaa ngi taxaw mu ne it dañu xam ni nit du doxa ci benn dàll heure boo demee ba sa dàll am problème benn dàll bi am problème looy def da ngay summi ñaari dàll yépp waaye jullit du doxe benn dàll te it xam nga boo dañu woon ak nit mu sol benn dàll da nga naan kii moom am na lu nekk ci boppam am na it benn aada boo xam ne nit ñi tey xamuñu ko ndax ni dàll bëri tey jii koo gis mu dox sulul dàll da ngay jàpp ne kii dafa dese donte ne ci sunna la bokk ci sunna la bokk mooy nit ki di dox sans sol dal yonent bi alayhi salaam du doon wax sahaaba yi léeg-léeg di leen dox sans ngeen sol dal ba da ngay gis borom xam-xam yu bëri dañ ko doon dundal rawati dañu daje woon ak Cheikh Nasir Albani ci jaamul islamiya da ngay gis ne lu bëri woon na tànk neen la daan def mi ngi noonu loolu ndax islam bañut loolu mais benn dàll moom di dem islam du nangu loolu mu ne it lépp loo xam ne nii ay nataal la ñu koy def ci lal ak toiture ak lu mu mën a doon islam da koo tere xanaa la yonente bi alayhi salaam waxoon nag ne illa raqmun fi sawb lu dul loo xam ni dañ koo bindaale ci yére yi nga xam ngeen ne am na basin yu bëri da ngay gis lu ay picc nekk ceeg ay genre kéwél ak ay genre yooyu mu ne bu dee loolu ci yére la nga xam ne yére bu ñuy sol la noonu loolee bañuñu ko mu ne doonte na bawoon ko nag mooy lëgën doonte na bawoon ko moo lëgën mu am nag leneen loo xam ne nii nattu la bu ñu yàlla nattoo mooy yére yi nga xam ne dañ ciy dessin ay nit ñu mag rawatina suñu doom yi ay mayo yoo xam ne Messi lañ cay def ak ay Ronaldo ak ay nangam ak i nangam nit ñoo xam ne duñu royukaay sori nañ nekk royukaay yi doomu jullit yi t-shirt yooyu lañuy jël jaayi leen ko ay yu cher cher cher ñu koy sol di ko toilettoo rawatina boo demoon même di julli ki nekk sa gannaaw jàkkaarloog moom yëru yu mel noonu moom jullit wuuru koo sol abadan xanaa lu dul mooy looy jiital teg dara ca kawam ala kulli xaal mbokk loolu kon mooy jeexal bunt bi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala dëpp la ñoo ngërëmam fi dunia wal axira ñu bàyyi rek incha allah bu bilal noddee bu ñàkk mu des quelques minutes